ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu bu baax a baax nuyu internet yi ñuy suivre national ak international jikkoy mbër bi la mën ta ñàkk ba toog ak mbëri moom bu yàggee foog nga cos seen jikko ndànk ndànk yaa mu gën a xam waaye di ci yéen bu baax a baax comme ni ñu koy defee événement lamb la ñuy topp ginnaaw ba ñu jógee ci nga xam te ni mooy caatu ngéwél ñun ci beneen caat bi caatu waalo moom a bëri ne nag Mbewaan production moo ko daal taxaw ñun nuyu ko laaj ko naka lay waajalee combat boobule caat maa ngi lay nuyu onze billah bismillah ini wala yàlla jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa ginnaaw woon sante yàlla julli si yonte bi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant assistance bi toog fii bu ñëpp du nuyu bépp supporteru caat bu waalo fi mu nekk di ko bëggee di ko safoo di ko tiitoroo di bëggee sama doomu nday Bamba mi toog di jaay moto ak oto ku ko bëgg rek boo ñëwee si moom mu jaay la ko doomu nday Mara borom ñetti mbaar képp ku ko bëgg oto rek ak moto boo ñëwee si Bamba mi toog mu jaay la ko qualité boo si bëgg nag am na ko. waaw moo nekk nii sama lépp sama DG ba mu ko amee ba léegi ñàkkuma dara waaw maa ngi bëggee ñëpp nag di siyaar ñëpp di nuyu ñëpp nag. di nuyu waa Moussa ginnaaw du ma ko bàyyi ba waa séeréer bu séeréer bu caat borom marché bees maa ngi bëggee ñëpp nag waaw. ayca nuyu ko bu baax a baax tur bi lan moo ko waral caatu waalo. caat bu waalo nag bëgg bëre moo ko teel a waral ba ma nekkee booy bu ndaw laa ko tudd ba léegi nii. Mhm. waaw da koo màggaale. dama koo màggaale quoi mhm. waaw. kan moo la gën a neex ci làmb. ma gën a neex. ci làmb amaguma ko de. moo doon nga dugg ci làmb da nga xëy xëy takk sa bët rek juba ci làmb la moo la neex ba tax nga dugg ci làmb. damaa judd am trois ans 7 ans âge boobu booy daam am jàng école di bëre kon loolu nattu yàlla. yow nga koy bëre. waaw man moom dama màgg bëre juddu bëre laa. bëre ba léegi loolu bëre laa jaay uh, kan mooy sa idole ci wàllum làmb. Alioune Seye numéro 2 ci wàllum bëre. ndeysaan Alioune Seye numéro 2 champion moom nga xam ne ñu koy xaarandi fu mu nekk nii ndax mu am adversaire caaru waalo nga dugg ci làmb xam ne. làmb boo fa duggee début bi day metti yan début nga dund ci wàllum làmb yu metti waay yan dund. ya début début làmb début. début xam ne début day metti yan. waaw làmb ñun suñu côté moom par exemple manqué jàppale rek manqué jàppale leen am moom la ñuy jooy rek booy dañuy bëgg a dem dañuy am problème mu biyee ñun jàppale rek leen manqué si làmb waaye jàppale rek mhm. waaw. parce que sama premier combat yaakaar la woon. sama premier combat maa ngi doon am combat <laughs> caatu waalo bàyyi ma kalmu nduur lañ jox grand majid moom mi nga xamante ni musul daanu benn yoon la daan te Eumeu Sène la ko daan nga ne yow musoom combat maa ngi doog a am combat nii bamba nekk nii sama wet ma koy bëril premier combat kon a yi ma bëri bokkul sama lamb de bii sama lamb lan moo tax bii nekk sa lamb lan moo tax grand combat la moo tax mooy premier combat arène waaw ah. non bi premier combat bi mooy sa premier grand combat non bi sama deuxième waaye bi ma laa def premier combat li ma bëroon fàtte ko grand da jël lépp rek tënk ko tegee ko nii lan moo tax loolu. bii mooy sama première grand premier combat. non lan moo tax loolu. Thiat lan moo waaw mooy sama premier combat boo gisee loolu nag. champion la ñëpp neen moom li ma doon sama premier combat. daa xam nga ni daa abrégé affaire yi escalier moom jël nañ ci dugg préparation combat yaa diggante grand man ndax nga koy sama préparation. ko ak samay xarit ak di jàmm préparation ko bu baax a baax. Mhm. maa ngi sant yàlla bu baax lu ma liggéey doy na ma. Mhm. maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. sama xel dal na bu baax a baax faalewu ma ku tukki faalewu ma ku dem feneen. <laughs> yaa ngi gaaru waala di ah. fii garaaw ma nga fi moo tax ma ne la man faalewu tukki maa ngi sant yàlla bu baax a baax. lan man lu mu gën a ngand gën maa arrangé. waaw ah, lu tax faalewu ma borom bisab tiiré di miin naa bisab tiiré. lan moo tax lu mu gën a ngand arrangé la. ku nekk la déggee numéro 2 mu lay torturé del teg lu ne Aliou Seye numéro suñu kër su liiru kon lan laay faale borom bisub tur yi róon ñooñu mënul ma faale mu borom bisub tur yi yaakal ma ndur mu mel ni seen gisee bariwul benn bise bi ngeen gisante ku ci nekk xas-xas loo nga waaye Kalm dafa jàpp dafa jàpp ne moo la mën lan moo la mën lan la moo mën man ah, ah mu wax si micro mën ma nii yomb na de waaye bu jëflantee nga xam ne jëflante nga ak góor man Baye Fall laa te Baye Fall du ragal Ah, leer na man fi ma juddoo ki ragal. est xam nga Kalma Ndour bu baax. miin naa ko bu baax bokk nañ ay guddi guddi bokk di bëre simple la xam ko bu baax kon kooku amul lu mu umu si moom waaw. na bëre mën na xeex day bëre day dóor est-ce que yaa ngi koy sóoraale laa juddoo fi laa màggee fi laa yoroo di doomu gunaas dama doon xeex ñi may fay waxatuma xeex si mbedd mi fayu ñu waxatuma may xeex ñi may fay. lu mu indi pere naaxu lu mu indi rek doo ma guerre di bàyyi benn armée lépp laa yóbbu waaw. doo sa micro bi comme yow moom instant bi da ngaa tàng paasal ma sa micro bi. nu mu tudd nu mu tudd. Bamba waaw ah, Bamba. borom tur bu neex bi. borom jumaa ji. borom ji nuyu naa la. soxna fay nañ la. noo def. sant nañ Ahmadu alhamdulilah. ñu fekk si la fii fekk seet si caatu yàlla waalo lu ñu mën a wax si moom. la ko yàq waxal caatu. caatu waalo waaw nga yaakaar a neex de ko neexal. <laughs> waaw caatu waalo waalo waalo bi. <laughs> waaw non kii kii champion lan daanal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw di ko ñaanal combat bi mu jëm nii yàlla may ko si ndam ci barke Seydina Muhammad waaw ñun moom pare nañ pour ko dem mën a doon waaw pare nañ fépp li mu wax rek ñun faale ñu ko dem Europe ko dem Amérique ñun loolu suñu doon neeku si waaw ñun nañ toog ñetti mbaare wala gunaas am lañ bëgg quoi ko ñun loolu lañ gëm. est-ce que xam nga kenn di bëree ah kooku de. <laughs> daanaka Karmu Ndour <laughs> ah, kooku loolu man de yàlla xam ne xaw ma ko. xaw hmm. bàyyi ma xel sa xaw ma ko man man caat laa xam. lan ngay yokk ci caat. caat kon nag dañoo góorgóorlu. waaw bu ñëwee def fu laag fay la ñun loolu lañ ko xamee ko hmm. waaw ñun jàmbaar lañ xam ci moom. Hmm. bu ñëwee def fu laag fay la waaw. def ñu lam ñu daan defal ñun surprise lañ xam ci moom. jàpp daan ñu. Mhm. waaw tey jii boo doon conseil nga wax mu yokk wala mu wàññi ci carrière am lan lay doon. Euh, ci carrière mu yokk wala wàññi. mu yokk dara wala mu wàññi dara lan lay caat caat caat ndaanaan la caat moom ko moom fekk loolu moom jaruñu ko si kii moom. Mhm. li ma ko laaj ma de boo ko mu yokk wala mu wàññi lan lay nekk lan la war a yokk ci pour moom mu dem wala lan la war a wàññi. non dañ koy ñaan mu wala ngaa far. non non pas farce. waaw ah, léegi wax ma lan la la war a yokk wala la war a wàññi. ñun am nañ droit farce parce que ñun moom lañ am quoi hmm. <laughs> waaw. wax ma rek la la war a yokk wala la war a wàññi ma avancé tuuti. li ma rek li ma war a wàññi. Hmm. fi mu nekk ni baax na waa ji moom jàpp yaakaar naa ñun jàpp ko moo ko tey àggu suuf bu soobee yàlla. caa jëlee micro bi caa caa gis nga Calme Ndour caa jëlee micro ndax gis nga Calme laa wax ndax yow gis nga Calme Ndour. waaw léegi Calme Ndour ak Lac de Guiers numéro 2 boobu man am naa Lac am Alioune Seye 2 am ñaamu ndaw am ànd paate ah, am wax yow am taaliba seex ñoom jooni ñoom maaji maaj ñoom Maguette Seck léegi waxuma ak ñooñu ak ko kii bu ëpp man awma borom adversaire bu ëpp man ba may toll ni booy bi laa daan ay efra rouge di jël ay nag hmm, borom États-Unis waaw man kon awma problème boobu problème ponkal kii bërëg ay ñoom selembelek ay ñooñu daa pompoal ay problème ponkal man awma problème ponkal de caatu waalo xam lu mu tuddee yaa ay luur te kër ga nag day barak courant ñëwagul ndox ñëwagul dañoo teel a ñàkk bàyyi meer bi mbana ma sonn Calme Ndour maa ngi lay wax wax ji rek bàyyi si xel de bii lii ay wallaay bàyyi si xel meer bi xamagul climat ay climat ki fan laa tëri daa war a ñam yooyu noonu lu leer laa lay wax nga dëkk géejawaay Calme Ndour dëkk Pikine ñu gis fu mu ne ni dër bi nekk diggante géejawaay ak Pikine Calme Ndour génnee géejawaay Eumeu Sène junior daan ko mu war a duggaat xam nga daa daa am ay daa bor yow génn sama wax daa am bu nga xam ne dafa war a fay ay fan sam dégg ma la li ma manqué woon ngi mooy ñu ma dooleel jàppale ma si wàllu biir te maa ngi ciy yàlla bambaa ngi nii est-ce yaa may dégg mhm. yooyu ay Kalma mu dëkk Pikine nag mu dëkk ginnaaw fee man sama bët si ponkali laa ko teg su ma mën ku teg bëtam si ay ñoom booy ñaa ay ñoom tabaatin fan ah. toll soo mënta daan Kalma teel bàyyi man sama gëm-gëm loolu la man sama man su may entraîné wax naa ne ko benn yoon du ma entraîné pour benn combat maa kalamu du pernaas yaa combat ba sa kanam laay xoolaat. mais nag ndox du jéggi pax ndox moom mënut a jéggi pax saa bi Calme Ndour mu nekk sa kanam. ndox du jéggi pax waaye ndox fa ndox doon taa fa saa demee fekk fa pet pet bu ndox ñëwee da koy jéggi dem. lan ngay def Calme Ndour le 30. Calme Ndour. gannaaw ma xool ko nii. de ko xool daan ko daa sekk ak moom rek si kàttanu yàlla ak yonent bi incha allah rabbi daan laa sekk ak moom daan. ah xanaa doo xool rek mu daanu nag ma ko xool su ma ko mën mu sax ma jël man at bi ne sama loxo rek waa koñ bi six point lan ñu ma dara victoire nu ma amee baax na na daanu rek xool ma mu ñaaw xool mu rafet na daanu rek nu ma ko amee baax na loolu moom na ko tuddee waale yeewu. kan mu leen daan na dóor mu daanu dafa gëj a dóor mbër mu daanu te ci yow la ko nar a defaatee. dafa nam ma dóor mbër mu daanu. waaw ah, dafa nam ma dóor mu a daan man daal laa nam. ah Xaadim ne dafa nam ma door mbër mu daanu de moom la bëgg a dóoraat bu daanu. <laughs> mais Omar saane nag maa ngi koy béggee bu baax Omar Sané. waaw oh, man nga bégg damaa Omar Sané social yi def fii am na solo lool fi ñu dëkk nii Omar Sané sa social yi ngay defar suñu yaay ñoo ngi ciy teg suñu bët man caat bu waalo loolu kontaan nañ si yow yaa ngi liggéey liggéey bu rafet su ñoo am combat tamit dugaloo sa kon ñoo ngi lay woo li ngay def si koñ ba rafet na xaaroo élection am ngay doog di def da ngay jëf te yàlla tax kon loolu Omar Sané dana si sant bu baax a baax a baax di la ñu ñaanal suñu borom yàggale sa post bi nga nekk sa taraang jàmm yaa ngi koy bokk ak nit ñi. Hmm. amiin maa ne dóor mu bi. tey loxo na la essayé nee na dafa dafa nam dafa non dafa ma ko dafa nam dóor mu daanu. man Ikiri Waalo ba ma amee huit ans laa fa nekk maam maama ba muy teg ndoxu xorom ngay dóorante. Hmm. te ardu amul. déggoo li ma la man ay wàllum dóorante wàllu la fekk baax ku jël avance Kalmu Ndour kay ponkalu deux mètres cinquante yow nga nekk un mètre kay yooyu pare ngaa préparé nga pour lépp man pour lépp laa préparé bu bëggee sax mën nañoo taxaw xeex tuuti bu yàgg yàgg doog a bëre ñaari mbëri simple la CNG dix mille yi mu njëkk a wax nañ ko njëkk a rayante ba pare doog a jàll <laughs> ah yow mu yow yéen caat mi engagé na de caat wàllum entraînement fi mu su ma bëree ba suba dem entraînement man entraînement chaque jour damay entraîné. Hmm? entraînement sama deret la chaque jour damay dem entraînement chaque jour chaque jour damay dem entraînement chaque jour. fu mu nekk nii ñaar séquence ngay def. exemple ça dépasse coach yi rek coach yi lu ñu wax rek man laa man maa ngi si ay loxo lu ma teg moom laay tegoo. waaw du nuyu waa ñetti mbaar nag bu baax waa Gunaas waa Darkase waa moom si réew waa Ceddo 80 waa Waali daan waa Jàmbaar waa Guy gi ay see yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. di màggal ñëpp waa di woo waa Pikine bu baax a baax ëppale wu ma fa dara. Pikine meen kawoon Pikine la dëkk de écurie Boy Niang la nekk. doo bàyyi écurie Boy Niang écurie Dégol. mun ma la koo bàyyi de fas foofu la nekk. doo bàyyi loolu moom Kër Masara dëkk daa waale yaan si fii. waale yaan si baal tooñ. te loo mbëri juddoo Pikine. écurie bi foofu la nekk moom foofu la nekk kon bu woo waa Pikine da moom Pikine la dëkk da ngaa bëgg nanga supporter jàmbur yi. maa ngi woo ñaari kursum yëpp samay fans lan. maa ngi leen di woo ñoom ñaar ñëpp. ah ñaari kursum yëpp samay fans lan maa ngi leen di woo. waaw maa ngi woo sama doom nday Pape Gambien Zal borom ñetti mbaar Pape Gambien borom repas yi maa ngi koy woo bu baax a baax Sall borom ñetti mbaar Ibra maa woo ñëpp si combat bi bàyyiwuma kenn ah, di woo waa marché pënd ñoom Mor cordonnier taala matériel maa ngi leen di woo pour ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax maa ngi woo Tapha Tony pour mu ñëw dugal ci combat mi loxo bu baax a baax a baax a baax a baax gars yi nañ ma ñëw jàppale si bologu bie yi boobu laa am maître dan bu Abdou maître Jalikan ñoo ngi koy woo du woo maître Abdou Jalikan pour mu ñëw dugal si loxoom ñoo ngi woo Isono ak Assane yàlla yi pour ñëw dugal seen loxo grand as ñoo ngi koy woo maa ngi woo nag sëñ moor Fall indi sëñ Moulay Fall borom kur borom ngaay mexe da lay ñaanal di la bokkal maa ngi woo la grand marabu ngañ bay la jeune fille marabu ngañ bay di woo Alaaji Omar di woo sëñ Cheikh Diagne Baye Cheikh seen maa ngi woo Tafase Brésil du ma ko bàyyi du ma ko fàtte Buuba Cheikh bu waalu na si ñëw dugal loxoom yéeri maaya na si ñëw dugal ngañ jaañ maa ngi woo waa ngir Fulaadu gépp pour ñëw jàpp si combat bi di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di woo waa diisoo ah, gars yëpp bàyyiwuma kenn sama doom day 10 000 maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax borom marché bees maa ngi koy woo bu baax a baax di bëggee ñëpp di woo bii Diallo comme d'habitude nga ñëw dugal sa loxo bu baax a baax bii Diallo ñoo ngi lay tàllal loxo pour nga dugal sa loxo bu baax a baax bii Diallo waaw waa neex na ma lool wax dëgg fa yàlla maanaam liggéey na làmb lu gën a neex mooy ñu ne mbër mi liggéey na loolu la loolu laa si bëggoon mu liggéey am doole tiit non man du ma tiit xale laa man ji année bu ma judd kuy tiit mënu see judd quoi waaw <laughs> waaw maa ngi nii place Bamba waaw BDG ku bëgg moto ak oto ñëwal si Mara ak Bamba ñoo la koy jaay yor moto yu baax yor oto yu baax ñoo leen di bëggee baax a baax a baax nag di leen ñaanal jàmm di leen ziar sama doom nday Malick mécanicien maa ngi naa ko bu jàpp si boolog bii Malick jàppal si boolog bii Malick mécanicien wax naa la ko nag dugal sa loxo bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. limon su yox ay noonam mu boole la ci mu bool la si ayca kontaane naa ko bu baax moom Thiatou a gis nga toog naa ko dóor naa ko nekk waaye tëral lépp waxtaane nañ ko ci fair play waxtaane ko ci respect waaye bëgg moom bëgg ci ñi ma fekk yëpp macha allah bu borom baax la kontaan ci yéen bu baax a baax waaye kontaan ci internautes yi national ak international ñu leen di daje beneen ci beneen waxtaanu làmb ci beneen